Kodi Léo Léo hey ko koy salma ko Ibou Khady doom day Biram Diouf nee na bëggul ketika Ibu Khady Djilass Ibu Khady seen Djilass a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wal bu baax bu baax saala li góor faala li jigéen. taxawal taxawal taxawal ndaw. tey naa seen gémmiñ tey seen taat jiitu naa leen ci daalu maam yàlla nee ko sarax di ko noppi Modou Kam doomu Adama Ndiaye. bisimilah yi mucc rahmaan yi mucc rahim yi xadi mucc nu kii nu bal nu kii nu yeeq nu koor mucc nu taw mucc nu maat mucc nu hono taw bokk na ho ari min juro ko yaare jam wayi mais ziara nun o koor fo taw maak fo njaaj ñamolaanu xoy koy xefem saltige digin don van celo tan dan bugul ya nune nune zon kende na sa tv kanu njëriñ yot na o feet ke dang foñ mi ibu xadin o don waage na mi tig o nak waage na mi tig o kiinu ɓaxeer waage na mi tig te bug mu coxoyo nuun nuun njëriñ yotin nuun zone ke o xoyo na laya nangi laaka jëriño wiin we ndiku feet manama pañ mbeña feñe nu gasangan bata xoot nu mbaɗu ɓaak kibin mbamir ne nuun nu mbexeñ mbamir ne nuun a fuurin hokki bo wono hu ando mbaɓerori mon domi adama wagena wodik kaga taxon fañ mi yibo xadi nu mbaganama pañ mbaram mbaram mbaram mbaram ne a paƴ mbaram mbaram o leya nuun de fo kaane xeeñ fa picc xa naaq nu mbaxalen bata ɓel nu fogo in toɓa te dol to xoole nuun xundux la nuun ka bugu uta baya ta xonna kaga xu andoona yee ko diida tig ndiig waɗi mucc oto ɗo nden mbina o gaspa taxoɗ o wupin maga waɗa galas billahi wallahi wa taala ɗur yen kema o naq rok ke mbinof fat i leya to leya ka jeg no njiriñ ka jiriña wiin ndiku feek ku natida pour fa ngola nga tong wada pay limong bo kiboxin o ngalirom kirang fa ngat kirang baya xonna o libo na daga tong xod numéro ne mimi bo xadi jilas so gi gara meke refe xay nda nemo leyaat wa de ke ka sogu jega ñal ne xay ta ku lemo kiin bindeen ndegel ajeno ajeno rek dina la wutile xam moom e ibo khadi jinas wali yene tengo salmakor wino bella ko nde salti kitto asa kakaro ga cina den je karo ga cina den ko no tin rundang nono tv tv ke kana je kaci manon tibi tibi ko andoona yee ko roka o to wala saqum o to an ka ñowatin chaque jour ganu njowonan de diganu mbooge ten mat ñaamel naak soma waagu fu mboorna ñiwaakin yepin na o ɗof billahi wallahi watal ba yaxoon ka fikiro saq ñiwaakin soom le moɗana fa ke wasalaam